ni mu ko defee ci Bilbao Serigne Bassirou Abdou Khadir noonu la ko defee ci Canarias Serigne bi agsi lii di mbooloo mi daal di koy dalal ci aéroport bu Canarias mu saafoon teeg ñoom waxtaan ak ñoom rawatina ki nga xam ne moom moo fi toogal Muxaddamatul Xidma ñu naan ko Serigne Assane Diop ci teewaayam mu daal di dalal Serigne bi Serigne Bassirou Abdou Khadir ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ko fii ci diwaanu Canarias ba tax na ki nga xam ne sax moom moo di Serigne Mourtada Murtala Bousso mi nga xam ne loxo nday jooru sëriñ bi la daa nay waxtaan eh, ci mbir mu mel noonu eh, daa eh, wax ñëw gi nga xam ne sëriñ Bassirou Abdou Khadir ñëw na ko fii ci réewum Espagne ñëw fekk si fi taalibe yi sëriñ Murtala Bousso la ñuy teewlu. comme ni nga ko waxee rek dañ fay ñëw ànd ak sunu kilifa gi sëñ Bachir moom sëñ Abdou Khader mu ñëw fii comme fi mu baaxoo dem fépp na mu fay demee rek ci ndigalu sëriñ bi ñu nemmikoon ci ak mbokki taalibe yi ñu agsi ci étape bu am solo bi mooy doon étape bi koy tëj incha allahu taala muy fii ñu nekk diggante Tenerife incha allah Îles Canaries bu Îles Canaries waaw ak ñi ci ak ñëpp ñu ñaan di sant bu baax a baax nag ci gàttandu gi nga wax ci ak si guddi gi yow yaa ngi jëlee fu sori lool kat ñeneen noonu waaye ñëpp ñu bàyyi si rafetlu bu baax a baax di leen xamal ne li ngeen def lépp rek sëñ Tuubaa mi tax ngeen di ko def yàlla nañu ko dajeeg ngërëmam. amiin amiin amiin amiin fedd bu baax a baax loo xam ne wax nañu ko ci loolu ci oto bii ñëw. Mhm. ma di ci yéemu. di wane ne deux mille un wala deux mille la fi ñëw si kër la dal ci yàgg na ko lool ma ne ko nag yëpp ñaar fukki at ak nangam nga. nekk ah, ko ñaari yoon de fii de yi. ko ca mu la gisee tey ak yoon woowee da amul wute moom. da lay gën a fonk da lay gën a kii ndax leen boole. est-ce que rek tax sëriñ hmm. lu mu gën a yàgg gën a dëgër. waaw ah. amul lenn looy xool ci moom amul looy nemmi tey ma gën a am engagement tey nga gën a bëgg ci moom. te boobaa ak léegi ñaar fukki at la ni mu ko waxee ak benn. waaw ah, ñaar fukki at la de. wallaahi jërëjëf yàlla jërëjëf li ma wax ci tugum mbokk suñu mbokk tedd yi sëñ Cheikh Mariam ni mooy suñu kilifa waaw sëñ Cheikh Mariam moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Baara wala hmm. mbokk yi ànd ginnaaw bi nga xamee ne Serigne Mourtala Bousso daa di nay wax ci ngan gi nga xam ne Serigne Bassirou Abdou Khadir mi ngi koy amal fii ci diwaanu Canarias rawatina ci réewum Espagne sëriñ bi fii nag la nara jeexale li nga xam ne moom mooy ngan gi tàggoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi ñibbi ci réewum Sénégal waaye balay loolu dina def benn waxtaan boo xam ne dina sant ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi nga xam ne ñoo ko dalaloon fépp foo xam ne wër na fa ci diwaanu Espagne ak ak li ko wër mu doon seen mbokk daam Kumba Gueye fii ci Espagne ngir infoset 7 TV ginnaaw bi nga xamee ne Serigne Mourtala Bousso daa di nay wax ci ngan gi nga xam ne Serigne Bassirou Abdou Khadir mi ngi koy amal fii ci diwaanu Canarias rawatina ci réewum Espagne Serigne bi fii nag la nara jeexale li nga xam ne moom mooy ngan gi tàggoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi ñibbi ci réewum Sénégal waaye balay loolu dina def benn waxtaan boo xam ne dina sant ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi nga xam ne ñoo ko dalaloon fépp foo xam ne wër na fa ci diwaanu Espagne ak li mu doon seen mbokk daam Kumba Gueye fii ci Espagne ngir Info 7 TV.